bu mbokk yi déglu dal leen nag jàmm feebaru coronavirus am na ci lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom benn yu ko am fii ci biir réew mi ñaar ñi daal dinañuy wér ba ñibbiwaat seeni kër kon lu laam-laamee jëmale ko ci wàllu feebar boobu ngir bañ nag mu law loolu nag moom moo tax ba njiitu réew mi daal di jël ay matuwaay tey jiw culikaay bii di su quotidien mag ñu koy limal di ñu xamal nag ne mën nañ ci ràññee tere gi ñu tere nag bépp xew-xew goo xam ne ñoo ngi koy amal tamit daal di boole ay nit daal dinañ yeeg université yi daal di tere tamit yenn ci ay bateau yoo xam ne dafay def ay ay touriste jóge ca bitim réew ñëw dugg nag eh, fii ci mim réew njiitu réew mi yemul foofu ndaxte jolikaay bii di Sud Quotidien ngi ñuy xamal ne it dina gën a taral nag lépp luy saytu goo xam ne dinañu ko saytu eh, ci suñuy wàllu frontière mu nekk ci tali bi wala bokk eh, mu nekk ci jaw ji kon loolu nag moom mooy firndeel bu ñu sukkandikoo ci jolikaay bi di laas ni état d'urgence moom la suñu réew bi daal di nekk jolikaay bii di waa grand place ne njiitu mi kon daal di ne jël juróomi mesure ngir xeex ci ni mu waree feebar bii nga xam ne nag moom mooy coronavirus te ci xeex boobu dafa mel ni askanu réewum Sénégal yëpp ànd nañ ci ak njiitu réew mi loolu sax la coolikaay bii di Le Soleil daal di fësal ci xëtam bu njëkk coolikaay bii di direct news maa ko ciy feelu ndaxte daal dinañuy fësal ne askanu réewum Sénégal yëpp benn jëmukaay la ñu am moom mooy xeex ci ni mu waree nag lii nga xam ne moom mooy feebaru coronavirus bi ci wàll gi ni mel sax coolikaay bi di Les Échos di ci yokk di ñu xamal ne ñi nekk ci lànguk politique bi ñu ràññee ci ku ci mel ni Idrissa Seck Abdoul Mbaye Lamine Diop ñoom ñit ñoom ñëpp ànd nañu nag ci dogal yooyu nga xam ne moom la njiitu réew jël autolikaay bi di l'évidence di ñuy jottali ay kàddu Pape Diop bu bokk gis-gis moom di xam leen ne askanu réewum Sénégal yëpp war a nekk ay soldat ñun ñëpp ñu taxaw temm nag sàmm suñu réew fexe nag ba feebar bi di coronavirus daal di fi jógee ba léegi ci xeex boobu nga xam ne nag njiitu réew mi daal dina koy sumb jëmale ko nag ci lii di coronavirus bi ñu ngi ñuy xamal ne ñii di takk der yi ñoom de seen liggéey nag dina ci am solo ndaxte ci 24 heures mi ngi ñuy xamal ne joriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moom nag daal dinay yónni ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ngir ñu dugg ci boîte de nuit yi ak baar yi génne ña fa nekk li ni mel moom moo am ci njeexteelu ay bés bi waaye na maar ñoom tamit di rafet rafetlu mesure yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di jël wante ñoom ñaan nag njiitu réew mi ngir mu daal di dakkal dem ak dikk bi ci wàllu jaww ji ndax teew ci ni kenn ci ñaar ñu bees ñi nga xam ne nag ñoom ñoo mujjee am euh, feebar bi kenn ki nag moom de fële ca Barcelone la jógee moom ba mu yegg see sax ci aéroport international Blaise Diagne foofu nag la ñu daal di gisee ne dafa am feebar boobu culikaay bi di libération du ñu xamal ne sénégalais boobu jógee ca Barcelone moom de ba mu fay jógee dafa feebaroon ba mu yegg see nag fii ci biir Dakar nag ba ñu ko xoolee li ñettu ko ci la ñu daal di gis ne moom am na feebar boobu loolu sax moom moo tax euh, équipage ba ñoom ñëpp daal dañu leen a ber mettre leen en quarantaine ngir saytu seen yaram wante ci xeex boobu nga xam ne rek ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bii di ko julikaay bii di tribune mu ngi ñuy xamal ne am nañu ci profito nag di fësal yenn ci ay xibaar yoo xam ne dara nekku ci dëgg loolu sax moo tax ba jooni ko ñu dénk wàllu wér-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne nak ne dina am ab plainte boo xam ne dinañu ko jébal procureur de la république ngir képp koo xam ne nag dangay def naka su dul noonu ak xibaar yi wala boog ngay fësal ay xibaar yoo xam ne dara nekku ci dëgg yoon war a mun a tegu ci sa kaw ñi nga xam ne nag tey jii am nañu euh, feebar bi ak ñi nga xam ne dañu leen a tëcc ngir liñatu lépp lu jublu ci seen wàllu wér yaram docteur Khoudia Sow nekk médecin socio anthropologue moom nag moom mooy xamal njiitu réew mi ne faw nag mu bàyyi leen xel bu baax a baax moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM daal dinay ñëwaat nag ci nit ñi nga xam ne am nañu feebar bi ba ñu toog di leen faj ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen di laam-laame ne dañu ko amam déet ñooñu nag war nañu leen gunge war nañu leen taxawoo ci ni mu waree loolu la docteur Khoudia Sow daal di fësal mu yokk nag di xamle ne ci mesures yi nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di fësal jëmale ko ci xeex ba ñuy xeex jëmale ko ci coronavirus moom daal dina koy euh, rafetlu te it mu ngi la santé di doxalee jëmale ko nag ci euh, wàllu feebar bii di coronavirus nekk na lu mucc ayib ñu daal di jukki ci wàllu tàggat yaram ndaxte feebar bii di coronavirus am na tamit ay gàllankoor yu mu indi euh, ci wàllu tàggat yaram ndaxte ci àddina bi yëpp fu mu nekk nii la ñu tal moom mooy xeex feebar boobu wanteew colikaay bi di stade mi ngi ñuy xamal ne terewul nag ñi di waa Real ñëw ci seeni wet loolu sama moo tax ba am na koppar gu takk goo xam ne nag toll na ci cent quatre milliards bëgg kaa jox waa Liverpool ngir fexe ba Sadio daal di ñëw ci ñoom suñu naataangoo yu jolikay di stade gis nag ne saajo moom mënul def leneen lu dul nangu ndaxte ak waa Liverpool saajo gañe na lu nekk léegi nag la ko dese kay moom mooy daal di xool feneen ba léegi ci wàllu feebar bii di Covid 19 jolikay bii di sunu lamb mi ngi ñu xamal ne daal di nay indi tamit ay gàllankoor ci wàllu lamb ndaxte combat bi ñu doon xaar ci diggante ba keroog ñuy pare na nag ci li nga xam ne daal moom moo jublu ci coronavirus lii moo nekkoon li gën a fës ci biir ci lukaay yi ñu leen di ñaanal njeex ci lu bës ak jom